وعلى آله وصحبه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ngi fas yéene ak yéen ci seen darsu siira ci seen téere bu am solo boobu di qurratul absaar fi siiratil mustafayi muxtaar tey nekk suñ fukkeelu darsu ak juróom-ñeent ci téere bu am solo boobu nga xam ñu koy top tay bi mu ngi dugg ak yow eh, bind bu bees mu ciy jàngale ñi nga xam ne ñooy e, ay baay tax yi bi sallallahu alayhi ñoo xam ne baayam ñam bokk ak ndey ak baay wala ñam bokk ak baay muy ay baay taxam borom téere bi loolu la fiy liim liimaale it ñi nga xam ne ñooy ay bàjjanam ay bàjjanam ñi bokk ak baayam e, dana ko fi liimaale it borom téere bi yàlla yàlla gërëm ko te yërëm ko ne ne bayaanu axmaami nabiyin mustafa ne ne bunt bi li ci leeral mooy bàyyi taxi yonente bi nga xam ne dañ koo tànn wa zikri hammaatil habibi al muxtafa ba tey dana ci leeral yi ñi nga xam ne ay bajjanam lañ eh, ki nga xamne ne sop sopp soppe ba mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dina leeral it ay bajjanam ño xam ño bayam ño bok nday ak bay muy commencé nak di lim nee ahmamuhu isnani wa hasratun tuat axmaamuhu nena ma ñi nga xamne ñoy ay baj ay bay taxi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamne ay bay taxam lañ nee na ñëw ni isnaani ñaar lañ wa asratun ak fukk maanaam fukk ak ñaar la tuwaat def na ko lim ne na ñi nga xam ne ay bàyyi tax yu yonent bi leen fukk ak ñaar lañ loolu benn wax la waqiila am na ñeneen ci boroom xam-xam yi ñene déeréet tisxatun juróom-ñeent lañ kooku moom mooy ñaareelu wax bi ñetteel bi ma ne wa waradat rot na it beneen lim xasaratu muy fukk fukk it rot na ci boroomi xam-xam yi am nañu fukk fukk lañ ñoom bàyyi tax yonent bi sallallahu alayhi waaye fii nag bi ci gën a wér mooy bi mu njëkk tudd fukk ak ñaar yi fukk ak ñaar yi moo ci gën a wér comme euh, moom ni nga xamee ne sax moom noonu la ko doolalee ndax moom la njëkk a tudd mu commencé di ko lim ku ci njëkk ki mooy alxaarisu alxaaris alxaaris mii moo nekkoon taawu Abdul Muttalib Abdul Muttalib moo nekkoon eh, alxaaris mi moo nekkoon taawam bul fàtte mukk ne jàngo nga ci gannaaw xisa bi ma la waxoon ci wàllu teen ba Abdul Muttalib teenam boobu nga xam ne waa Quraysh dañ koo bëggoon nangu ci moom seen xisa boobu gannaaw biñ demee ba ca àll ba yàlla dogal gëlëm gi fa mu góoroon ndox génn faat te booba taawam bi kii rek la xamoon muy xaaris mii mu wax sax ni bu amee fukki doom yàlla bu ko may fukki doom e, ay góor dina ci kenn ngir jaamu ko yàlla yàlla may ko fukki doom ya kon alxaaris mii jamono yi mu wax lool kii doom la amoon ci doom kon alxaaris moo ci njëkk e, bokk na ci ñi nga xam ni mooy baytaxu yonent bi mooy as subayru zubayru mii Zubayr mii nag moo bàyyi yonent bi salaa sallam muy Abdul Abu Taalib Abu Taalib ak ki nga xam ne mooy Abdullah di bàyyi yonent bi ñoom ñoo bokk ndey ak baay bàyyi yonent bi muy Abdullah ak Abu Taalib ak Zubayr mii ak ku ñuy wax Abdul Kaaba ñeent ñii ñoom ñoo bokk ndey ak baay متدكين والمقوم أك مقوم المقوم آه، المقوم موم أك حمسة حمسة نيوم نيو بوكا ناي أك باي المقوم موك حمسة نيو بوكا ناي أك باي سين ياي تدون حالة بنت وحيد حالة بنت وحيد آه، وعبد الكعب عبد الكعب وخونا لجي لجي موك سبيري أك باي يونان تبي أك أبو طالب نيو بوكا باي diraarun ak ku ñuy wax diraar diraar mii bi mu juddu mooy non bi mu faatu mooy at mi nga xame ni ci la yónni yonent bi sallallahu alayhi ci at moom la faatu at mi ñu yónni bi ci la faatu waaye moom ak ku ñuy wax xabbaas ñoo bokk ndey ak bay moom diraar dafa faatu nag ndaw xusam ak ku ñuy wax xusam ñoo ñi ci bàyyi tax yonent bi leen bokk kazal muqi muqiiratu ak ku ñuy wax al muqiira kooku it tey bàyyi yonent bi bàyyi tax yonent bi ci la bokk ma al kooku it bokkoon ci bàyyi yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon ko tabe lool moo tax ñu daan ko wooye tur woowu al mooy taw bu bari ni mu daan joxe ci tabem moo tax ñu ko daan wooye loolu ñi nga xam ne nag lim na leen ñoom ñëpp lam yudriku al islaam dabuñu lislaam bittifaaqi loolu moom boroom xam-xam yi wutewuñ ci ñu tudd ñu ñëpp kenn ci ñoom fekkewut yonent bi muy bi muy bi muy bi nga xamee yonent bi salaa salaam ñëw na eh, indi woote lislaam ñi fekkewuñ ko dabuñ lislaam boroom xam-xam yi wuute wuñ ci ñii moom fekke woon jamono nu ñu yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dabuñ lislaam mooy ñim tudda ñi mu ne wa xamsatu ak alxabaas xamsa ak ku ñuy wax xabaas xabaas mi waxoon naa la ne moo ki nga xam ne diraar ñoo bokk ndey ak bàyyi xabaas mi nag moom indal xulama fa boroom xam-xam yi dañ ne xat adarako xat adaraka jot nañ albixsa albaxsatu yonante ga summa aslama topp ñu tuub kon xamsa ak ki nga xam ne mooy xabbaas ñoom fekkee nañ bi ñu yónnee yonante bi salaa salaam te ñoom ñaar tuub nañ xamsa eh, nag mu ngi dugg ci lislaam ci atum ñaar ci atum ñaar lool lenn ci waxi borom xam-xam yi la waaye nag li gën a wér mooy ci atam juróom benn jamono yi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi ci al arqam ibnu abi arqam Lol, daal mooy li ci gën a wér yàlla nag xam la ci gën not kon ñoo ñaar muy hamsa ak habbas fekkee nañ yonent bi biñ ko yónni gëm nañ ko tuub nañ dugal ci lislaam lakin waaye nag abu taalib abu taalib maha abi lahab ak abu lahab ba tey mu ci bàyyi tax yonent bi ndax nii ñëpp ñoo abu taalib mii ak bàyyi yonent bi abdullah waxoon naa la ko ne ak subayri ñoom ñii ñoo bokk ndey ak bàyyi léegi nag ñii ñaar abu taalib ak abu lahab mii abu lahab ñii moom xar adaraka jot nañ fekkee nañ albirsa bi ñu yónni yonent bi fekkee nañ ko waaye nag wama arab waaye nag amul aajo jo nga xam ne ci la ñuy duggee ci lislaam maanaam dugguñ ci lislaam fekkee nañ bi ñu nee nante bi moom abu taalib mi ak abu lahab waaye nag jotuñoo dugg ci lislaam kon borom téere bi ñooñu la indi ci bàyyi tax yi yénante bi salaa salaam tudd na ci nag ñi nga xam ne ñoom ñoo jot a dugg ci lislaam ak ñi nga xam ne fekkeewuñ bii ñu yónnee yónante bi ak ñi nga xam ne fekkee nañ lislaam bi yónante bi woote waaye gëmuñ ko kon nag mu ñëw ci e, ñi nga xam ne ñooy ay e, ay bajjanam hammaatuhu safiyatun almubarra e, bàyyi taxam yi nag bokkoon na ci ku ñuy wax safiya safiya safiya mook moo xamsa ñoo bokk ndey ak baay moom safiyatu mi safiyatu mubarra mi moo ko xamsa ñoo bokk ndey ak baay ma umaymatun ak ku ñuy wax ma kooku it mu ngi bokkoon ci bajjani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaatikatun ak xaatika xaatika moom ko siiw la mooy boroom gént ga ci xare badar gént gu siiw googu moom xaatika mi e, moom it e, bokk na ci bajjani ci baytax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa barra ak barratun barra yi bokkoon na ci ñoom ñii wahakaza ak ak itam bokk na ci ñoom ummu hakim ku ñuy wax ummu hakim ummu hakim nag ummu hakim mooy yaayi yaayi seydina usman ibnu hafan ummu hakim ñi ko daan wooyee albayda albayda moom mooy yaayi usman ibnu hafan ak ku ñuy wax arwa arwa nag tur woowu danañ koy wax waaye tur gën a siiw tur wi nga xam ne mooy turam dëgg-dëgg mooy safiya mooy mook ak xaaris xaaris mooy taawu taawu abdul taawu abdul mutalib ñoo bokk ndey ak baay alxaaris xam nga moom laa njëkk tudda moo kii nga xam ne mooy arwaam yi ñoo bokk ndey ak baay kon arwaam yi mu ñii ñëpp nag waxanu ñoom ñii islaamu islaamul islaamul uula islaamul uula lislaamu ko njëkk ki yuruwaa dees na ko tudda kon moom li mu wax fii nekk njëkk ki muy safiya moom rek lañu wax ne dugg na ci lislaam fekkee na lislaam dugg ci lislaam ñi ci des ñëpp boroom xam-xam yi dañ ci am ak wuute ñoom xatiika ak umaymatu ñi ñëpp boroom xam-xam yi dañoo wuute ci seen lislaam mbokk yi kon xam naa lii mooy seen darsu tey ci seen euh, bàyyi tax yonente bi ak ay bàjjanam incha allahu rabbi bu ñu yàlla ma ñu fekkee ñëwaat indiwaat beneen darsu ci wàllu ñi nga xam ne ñoo doon ay jaam euh, di ay gor ak ay jaam nekk ay ñoo xam ne ñu daan liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi